salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaat في كل سار وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبصر والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبصر والسفر salaat lazi fi kulli saarin wa fi safar hamani asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen sun mbokki jullit yi boo rawatina sun mbokki murit yi ñu dëkk ci Sénégal ak gox bi fu fi waay mën a nekk rawatina waa Touba ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ñaanal ci barkeb Serigne Touba di ñaan ngeen ñaanal nu ci barkeb sëriñ Touba nu yàgg a fekke ay màggali màggali màggal màggali màggal yi màggal yiñ bëgg a fekke nag kenn ci royukaay ya kenn ci ñi seet muy ku ñuy wax Ablaye Sylla waaye bala ñoo wax Ablaye Sylla ñu wax baayam docteur Sylla docteur Sylla yoonu murit ñu ngi lay gërëm waxoon naa ko waxaat naa ko docteur Sylla yoonu murit ñu ngi lay gërëm mboolem ñi fi nekk sëti sëñ Touba nee nañ ku sañoon de am doom ju mel ne ji nga am muy Ablaye Sylla doom joo xam ne bu Serigne Touba soxlaa mu takki dàllam ba mu dëgër taxaw ci soxla sëriñ Touba mu mel ne liñ ci mën a jàngat mooy màggalug daaw màggalug daaw fii nu taxaw ren fi lan taxawoon fi lan taxawaat eh, màggalug daaw Ablaye si la li nga xam ne si def na ko ci ci ci ci màggal gi buñ ko dee xayma ñaari junniy nag yi tegal na bi ñaari junniy nag yi tegalee ba noppi mu waxoon daaw ne fas na yéene buñ ci àggaatee day noo ngi ñaan ci Serigne dara jëy Serigne Touba. defewaat ko nu raaw niñ ko defee ne ren tem ànd ku wér ak wér la ak ñeen ko àndal di liggéey moo ne mel na ne lam waxoon de moom nun ñi fi nekk teg nañ ci suñ bët ndax ren bañ ko tàmbalee ak léegi yàgg na ñu tàmbalee ko ci oto yi nga xam ne ñoo indi suuf di ko def ci taataay ak oto yi koy manq ak oto yi koy maasale ak mbooloo ma personnel ba Ecotra defe naa kenn desut mbedd Touba foo xool seen Ecotra Ecotra nag liggéeyam buñ ko dee adressé ci Ablaye Sylla lañ koy liggéey mu wax ne bu lii de defar dëkk bi defar mbedd dëkk bi defar penc bi moo ko tax a jóg waaye du yàq dara ci liñ defoon daaw mu mel ni mu mel ni ren dafa wax ne fu fi jumaane fu fi jàkkane fépp fuñ fi jàng xasaayit fépp fuñ fi dusurlu du duruslu fépp foo xam ne ay murit daje nañ fa donte la dañoo mat ñaar fukk Ablaye nee na ñi de nañ yéenee sol suñ dàll jënd ay nag yóbbu fa def fa ay teraanga ngir lenn ngir ngir ngir kenn rek muy jëmi Serigne Touba Ablaye nee na mi ngi taasu ci barke baayam tàllal loxoom ca kaw moog ñim àndal di liggéey tàllal loxoom ci njabootug Serigne Touba gi li ko commencé ci sëñ Modou Moustapha ba ci sëñ Mourtala nee na wax na ne daal euh, mbooloo mi na xamal ne nañ jënd nag yi ci yar ak teggin jënd ko lu ëpp lañ ko jënde woon daaw yor ko jox ko nit ñi ñu terloo ko def ko ni ko bëggee moom Ablaye nee na mi ngi sàkku ñaan ci ñëpp ñu ñaanal ko dàllam bii mu sol ci liggéeyub Serigne Touba bi mu di ko man moog ñim ko àndal ba fu ko yàlla yemale mu yamale ko fa te yéene ja moom du fa yem wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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 هلا من بي مكسيم الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر auzu billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim ñi ngi leen di jaar bu baax a baax di leen nuyu ci ci weeru safar wi ku gis bërëb bi ñu taxaw rek muy nekk bërëb bu symbolique di ci di ci jumaa ji di jiital ci nuyo bi sama jëwriñ ji ma taxawal moo xam ne nii mooy sëñ mataar nekk jëwriñ ci kuréel bi nekk ci jumaa ji ñu déppee ko xidma di leen ziar ñoom ñëpp wax dëgg yàlla seen liggéey ak seen taxawaay moom am na solo ci dëkk bi dëgg yàlla yéen moom wax dëgg yàlla bis bii nga xam ne ni moom lañ jëm muy safar moom ñëpp leen war a taxaw ku ne xam ne li ngeen di accueillir comme pèlerin ñi nga xam ne ci jumaa ji la nekk ngeen war leen la dundal di durant euh, màggal gi yëpp ngeen ci am ngeen ci am taxawaay bu am solo loolu moom wax dëgg yàlla président si la jëwriñ président si la war leen ci accompagner comme ni mu ko defee woon daaw ne ren fépp fi nga xam ne nii fa la war a yóbbu nag ak la cay dem ñu jiital leen ci ñu jiital ci fii nga xam ne nii fi la lépp tàmbalee muy jumaay Tuubaa ngeen yor lépp jumaa ji moo tax ñu indi fi xéewal yi te am na yeneen xéewal yu war a ñëwaat incha allahu rabbi di leen di leen ñaanal ci bis bi ngeen ñaanal ci président Abdoulaye Sylla moom nga xam ne jàmbaari lislaam la jàmbaari yoon wi la jàmbaari Serigne Touba la ku nekk gis na taxawaayam ci dëkk bi ren nag moom lim ñu sant jëwrin lim ñu sant mooy fépp foo xam ne nii am na jumaa ci dëkk bi wala jàkka wala sancaan yi ñu yóbbu fa li gàtt jëmmal bis bi màggal bis bi loolu daal mooy ndigal li ba tax na moo tax loolu ndigal lool bi mu jibee ñu ne dañ ciy tàmbalee nga xam ne fépp fi nga xam ne fi la lépp di tàmbalee ñu tàmbalee ko fi muy jumaay Tuubaa jaarale ko ci say loxo yow nag nga suñ jëwriñ di suñu lépp ñu lay ziar di la tàllal suñuy loxo nga ñaanal ñu suñu waajooju nga xam ne jàmbaar la jàmbaar yoon wi la jàmbaar yi lislaam la ngeen ñaanalal ñu ko fasalal ñu ko baax baax baax baax jërë ngeen jëf jërëjëf sëñ Saliou ñu ngi lay delloo nuyoo di la jox nuyoo mbooleem daayira bi ci njiitu sëñ Afia bu si imaam ak ci njiitu kuréel gi nga xam ne ci la nekk muy sëñ Fallou Mbacké nga xam ne moo gisee liggéey bi nii di wax ne waxal président ne ko jot nan xéewal yi mu yónnee ci jumaa ji mu ñaari nag yi mu yónnee ci jumaa ji jot nañ ko te du guléet ndaxte yàgg na koo def ak ñun def na ko daaw def ko ren di ko ñaanal mu gën koo man gën a wér gën a am kattan ba lim nësër ci senegal yéene ko ci yoonu murit mu def ko ni mu ko bëggee te am benn ndog ndaxte koo xam ne nii bëggut a feeñ ci dara te saa lu baax jotee jóge mu mu gën mu jëlee loxoom def ca kooku ko ñaanal bu bu guddi boo ko ñaanalee ba mu jot li soxla jàpp naa lu baree ba dana dem dana dana dana gën a naat kon ci turu daayira bépp ñu ngi koy sant. ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy ñaanal yàlla mi dara taw ci barke safar bii li mu yéene ci liggéey bi mu def yàlla na ko am ni mu ko bëggee te du am benn coono wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bada handin muqalladin li baaqin ma dur alladi hada qadar salaatu alladi anu abdan bi ala man bi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 man bi li tey yabal badwa yal na ko man bu naga ni déwénee yéen ñi ko indee yal na ngeen fi yàgg yal na ngeen ko fi yàgg indi ba seenu njaboot yor leen ca kaw ñun ñëpp nu bokk gudd fan ca xéewaluk sëñ Touba gi yal nañ fi yàgg. yokk ba yëg ko rek ne ko ca yokk ba yëg ko rek ca kaw ca kanam. billaahi yéen tamit yal na yàlla fay seen tànk yi ngeen ñëwee fii nii ñu leen di ñaanal rek gudd fan ak wér gi yaram rek bismillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim inna wali yàlla jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ah comme niñ koy wéyalee liggéey bi rek ñu ngi fii ci Touba Tindodi Tindodi nag ku ko wax xam ne bokk na ci gox yi gën a am solo ci biir Touba mu bokk ci sancaani Touba yi di dëkkub Serigne Cheikh Aliou Mbacké moom sëñ Aliou ñëw fii seet si suñu wayjur bi jox ko sëñ Aliou Cissé jox ko xéewal yi nga xam ne nii moom la président Ablaye Sylla yónni pour ñu jox ko ci ci jàkka yi nekk Touba mu nekk ci limu lu toll ci 160 jàkka ci biir Touba ñuy wéyal liggéey bi ñu am ñu ànd ceeg samay mbokk taalibe yi nag muy liggéey bu am solo ñu leen di ñaanal yéen mbokki taalibe ci weer wi nga xam ni moom lañ nekk ci bis bi ñuy dëgmal mu bisub safar bi ngeen ñaanal président Ablaye Sylla yàlla saa borom defal ko saxaadatu daaree nii. asalaamaaleykum. wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñi ngi leen di nuyu yéen ñi nga xaye ndawi sëñ Ablaye Sylla ngeen ci turu sëñ Cheikh mi nga xaye mooy borom dëkk bi ak turu mbay gi mi nga xaye mooy chef de village bi léegi bi mu ñëwee dama ko woo yëgal ko teraanga ji nga xaye indi nañ ko fi ndawi sëñ Ablaye Sylla indi na ko fi mu ne ma gannaaw nekkuma fi maa ngi fii eh, kii jox naa la ndigal niñ ko war a def ngeen def ko ni defar ko ba mu baax mboolem ku ci mën a jot rek nga jot ci ah fu mu yamin xam ne foofa la yem waaw daal ñu ngi ciy ndaw yi sëñ Ablaye Sylla yi moom sëñ ali Sylla docteur ñoo ngi leen sant bu baax jot nañ ci daañu ko defit ni nga xaye moom lañ ko war a def jërëjëf sëñ Ablaye Sylla ak say ndaw yàlla na ko sëñ Touba nangu barke sëñ Touba jërëjëf ci kàddu sëñ Cheikh Mbacke moom sëñ Aliou haditu anil mawla wa an xayri xalqi عليه سلام من له أكتب السفر صلاة وتسليم مع البيس سرمدا على من بي مكسيم الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر ربا شكورا بعد هند مقلد لباق ما در الذي هذا غدر صلاة الذي أنوم أبدا لبي على من بي لي خاد سوا بلا كدر فساة خير الخلق أبدا قصائدي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 ci ñi ngi leen di sant yéen ñëpp di leen nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di sant suñ wasila bi Cheikh jiili Mbacke mu Cheikh Sidul Mokhtar di la di la ziar bu baax di am mbégte ak kontaante ñëw fii fekk la fii ci muy milieu Mbacke Bari Sëñ Sidi Mokhtar di milieu bu symbolique tamit loolu lépp ci ci kaw wéyal liggéey bi nga xam ne ni moom la ñu président si Sylla sant ne ñu ci ci maanaam ci ci gox-goxaat yi nekk Touba. fépp foo xam ne nii nag am nañ yéene tàntal fa Seexul Xadim Serigne Touba Xadim Rasul mu feddale fa kóllëreem wane fa boppam moo tax ñu ñëw fii ci suñ seex bu sell bii seex jiili ñëw fii indil ko par xéewalu président Ablaye Sylla profité wala ci occasion bi nuyu suñ mbokk taalibe yi ñu fi fekk parce que fii tamit euh, milieu Ecotra la base Ecotra la parce que bu ñuy ku ne ku wax Ecotra wax ko ci liggéeyu Touba bi ba tax na saa yu ñëwee Touba depuis 2016 comme ni ñu koy faral di defee saa yu ñëwee rek fii lañ ñuy yaatal dalal ñu fi ñu am fi dalluwaay bu solo mooy kër gi ñu jàkkaar loolu yëpp bokk ci mbégte mi wax dëgg yàlla sëñ Jili mi tamit am ci taxawaay bu am solo ndaxte fépp foo xam ne nii waxtu xewlu jot nañ seen yitte yëpp dañ koy bàyyi ñëw fii ci sëñ Jili mu yaatal leen yaatal bu am solo daal ba na taxawaayam ci mbir mi daal ak liggéey bi am na solo moo tax daal suñu wéy góor président Ablaye Sylla jëwrin yónni ñu fii ñu ñëw fii wax dëgg yàlla feddali kóllëreem indi indil ko xéwal yi waaw ci loolu yëpp mu jaare ci suñ suñu loxoy waajuru góor dëgg yàlla moom mu mu mu mu ñuy yaatalal mbir mi di di ñu wax fi ñuy jaar muy docteur Sylla moo ñuy yaatalal lépp wax dëgg yàlla wan ñu wan ñu yoon bi wax ñu fi ñuy teg suñu tànk ñun tamit ñu ay ñu di ay ndaw rek fa yéene woy ci liggéey bi fas yéene jaar fi mu ñu jaarloo tamit ci ñaan saa boroom daje cee ngërëmul yàlla suñu borom ak tawféexi sëriñ Touba Xaadimu Rasuul. leen bu baax tey am mbégte bu baax ci seen teewaay fii ni nga ko waxee barab bi dafa bokk ci barab bi sëriñ Touba yàlla dogal cër bi nag di sëñ Sidi Muxtaar xalif général di Mouride diggante Ablaye nag ak euh, Cheikh Sidil Muxtaar Ablaye Sylla ak Cheikh Sidil Muxtaar loolu diggante bu yaatu la bu yàlla dogalee njabootam màggaluk sëriñ tubaa gi jub si cër yi ñuy seddale ci kër sëñ Tuubaa yi ñu beral penc mi Mbàkke Baari fii nga xam ne sëñ bi da koo fonkoon lool muy foo xam ne li taxoon mu ñëw fi sanc fi jaamu yàlla ak liggéeyal fi sëriñ Tuubaa bu bokkee ci barab yi ngeen tànn ngir ngir yeesal liggéeyu Ablaye Sylla boobu loolu dañ ciy sant yàlla di ko jaarale ci ki nga xam ne mooy waajuram docteur Silla ak yow bii nga xam ne yaay seen ndaw di Serigne Saliou ñoo ngi leen di jox suñuy kàddu cant ak suñu kàddu ngërëm jëmee ko ci moom te la mu seqoon ak sunu waajur wa di Seex Sidil Muxtaar di jëf joo xam ne neexut a dudd ci rajo neexut a wax loolee dañ ko ci ñaanal yàlla sunu borom yëkkati ko ci ba faw defal mbiram mboolem aw askanam ak képp ku ko xam te bokk ci yoonu murit jëf juree ji mu jëf ci yoonu murit yàlla na nga ci tàbbi fay ga tamit yàlla na nga ci tàbbi fii nga xam ne ngeen ñëw nag dafa bokk ci këram kër Sëriñ Sidi Muxtaar gaa nga nële bokk ci fi nga xam ne da koo defoon mu nekk barab boo xam ne dañuy bu fi jógee nañ ko defal mu nekk barabu Cheikh Ahmadou Bamba nga xam ne mboolem liggéeykat yi ngànk liggéey bi waa Ecotra bu nu ñëwee foofu lañu leen di dalal fi la leen xalifa général de Mouride di dalal ba màggal gi jàll mooy ay at yoo xam ne toll na si juróomi at wala juróom yoo xam ne saa bu ñëwee fii la ñuy dal kon ndan nangeen ngeen ñu jottali sunum nuyoo boo xam ne mi ngi jóge ci njaboot gi mën naa ne la ndax pénc mi bu ñuy wax ci turu njaboot gi yëpp la ñuy wax kon nag na ngeen xam ne ñi ngi leen di sant di leen gërëm di ko jaarale ci yow mii seen ndaw di Serigne Saliou di ko jaarale ci sa waajur si docteur Silla di sant ñëpp di leen gërëm di ñaan yàlla ñu fekkewaat ko déwén te mboolem coono yi muy daj ci njabootu Serigne Touba gi di ko daj ci liggéeyu Serigne Touba bi fii ci biir Touba loolu du du lu neex a expliquer ndax rëyaayu dayoo bi ndax euh, saa bu màggal gi desee lu mat weer nga mboolem société yi mag yi nga xam ne ŋànk nga leen ñuy liggéey ci wàllu maanaam lu mën a jàppandal ab dëkk nga yebal leen fi ñuy aw am fi diiru weer di liggéeyal Sëñ Tuubaa te doo ci laaj dara loo man ci di ko def ci ab coono nga di ko def loole murit yëpp amel nañ njukkal ab Ablaye la kon daan loolu rek lañ amoon ci kàddu yoo xam ne ñi ngi koy eh, ñi ngi leen koy yónni di leen koy yóbbante ngeen jaarale leen ko ci docteur Sylla bu ngeen demee jaarale leen ko ci Ablaye xamal ko ni ko ndaw yi yegg si nañ bég nañ bu baax a baax te di leen ñaanal yàlla mi nga xam ne dara taw ko mu bokk leen sam bokk leen aar bokk leen suturaal ba moom li taxoon mu doon liggéey Sëriñ Tuubaa mu am ci euh, fa fajuk aajo àddina ak alaaxira la ca des nag moom du waxtaanu du waxtaanu rajo loola moom yéen a ju sori lay doon ak euh, yéen ju kawe. loolu la ca des moom ñu bàyyi ko suñu loxo incha allah daan ko yeggaleeg nañ ko war a yeggale daan ko waxtaanee nañ ko war a waxtaanee waaleykum salaam wa rahmatullahi taala salaatun wa taslimun maal bisi sarmadan ala man bi muksimal amni wal bashar firaari bil muxtaari min qablu qaadali mukuusan wa tafsiran ladal jinni wal bashar شكورا بعد هند مقلد لباق ما در الذي هذا غدر صلاة الذي أنوم أبدا لو بي على من بي